ayca liy gën a fës ci xëtu yéen kaay balaa ñuy xuus dem ba rajo Futur Média ñu jox kàddu bi euh, grand Bourba sëñ bi ñu dooree ko quotidien l' observateur bu groupe Futur Média. l' observateur gis nga ko ñëw na nag ci mbiram Ousmane Sonko ba léegi ak procureur de la république bi mu ne rek kon tàmbali na li nga xamante ni kon moom mooy yoom mbir yi Serigne Bassirou Gueye lan moo tax rek ci plainte bi mu daal di viser x maanaam alaxam. Euh, non Ousmane Sonko yéen a kaay bi ñëw na ci ñëw na tamit ci li nga xamante ni mooy euh, guerre procédure bi nga xamante daal mënut a ñàkk ci mbir moom ak tamit borom salon de massage bi li ko mën a xaar ci li nga xamante ni rek moom mooy coowal Ousmane Sonko ak Adji Sarr loolu yéen kaay bi def na benn dossier également ci parti bi di Pastef bu Ousmane Sonko gone la wante dafa mel ni daal euh, jéego yu mag lay dox ndax rek ni mu gaawee fes ci dëkkub Sénégal. yéen kaay bi tamit ñëw na ci hôpital militaire bu Wakaam lii nag euh, njombe la ab militaire boo xamante ni rek moom dañ ko jàpp mu doon sàcc matériel boo xamante ni ay hémodialysé ñoo ko doon moom ak tamit yeneen i jumtukaay yoo xamante ni daal moom euh, waa ji mi ngi ko doon euh, sàcc foofu moom nag ngóor si ba léegi lim sàcc bi ñu ko xaymaa ji ko toll na ci fukki million ak ñaar l'observateur moo gisee ni les euh, enquêtes ñëw ba léegi moom it ci mbiram Ousmane Sonko ak tamit dafa mel ni daal moom mi ngi jëm rek ci guta mun sukkandiku ci yenn kaay bi ak li nga xamante ni moom mooy xaar ci wàllu daan def na nag li nga xamante ni mooy bi jëm ci levée kiiraanu euh, muuraayu kiiraanam fa li nga xamante ni kon moom mooy ca assemblée nationale procès verbaux yi nga xamante section recherche euh, bu def na ko ak tamit prélèvement yi def yenn kaay bii di enquête ñëw na ci ak tamit li nga xamante ni mooy fitna nga am ca Casamance mu mel ni daal lu jeexagul la saa su nekk des ci wax mbiram Ousmane Sonko ba léegi le quotidien ñaar dañ ñëw gis nga ko photo baa ngi nii président Macky Sall ak xalif général des Mourides sëñ Mountakha Mbacké Ousmane Sonko tamit ak sëriñam mu mel ni kon rek euh, ñi ngi expliqué ci kilifa yu mag yi nekk ca Touba euh, sëriñu Ousmane Sonko moom dafa jàpp ni mbir mi complot la wax na ko xalif général des Mourides sëñ Mountakha moom président Macky Sall yéen kaay bi nee na jël na téléphone am woo ku tedd ki ngir rek wax ko ne mbir mi du euh, mbiram privé la mu mel ni kon commission ad hoc bi tamit dañ koy rek commencé samp altine yéen kaay bi ko wax Le Soleil ko ñëw rek ci li nga xamante ni mooy case recasement sociale muy promesse boo xamante ni daal euh, ubbi na rek leneen loo xamante ni rek jëm na rek ci nouvelle bu baax a baax yenn kaay bi daan na ci waxaat ak tamit gis nga ko ci kaw yéen kaay bi ñëw na tamit ci commission des lois bi nga xamante ni dina jane altina ngir càmbar mbir yi Ousmane Sonko li l'observateur doon wax la libération yi daal dina ci ñëw muy ay càcc goo xamante ne daal ay matériel la yoo xamante ni insuffisants rénaux yi ñoo ko doon jum jëfandikoo ci hôpital militaire bu Wakam sergent Ibrahima Dieng mi nga xamante daal naka lañ def rek ba teg ko loxo ak tamit moom mi nga xamante ni dañ koo piégé ndax ay daf doon jël rek ay mbir yoo xamante ni kon matériel hôpital bi moom daal di koy jaay kii nag gis nga ko noonu mooy Maodo Malick mbay moom it yëkkati na ay kàddu ci mbiram Ousmane Sonko ndax dañ koo jiiñ ne doomam moom moo doon yóbbu rek ki nga xamante ni mooy aji Sarr wante Malick Mbaye weddi na ba mu seet ne xëy na kooku jarbaatam la wante moom daal dëgg yi daal wax na ko moom Maodo Malick Mbaye Ousmane Sonko ba léegi moom moo nekk ci xëtu yéenekaay bii di tribune procédure levée immunité parlementaire bu mel ni kon euh, tàmbali na as premier acte bi posé nañ ko li ci des nag mooy rek commission loi bi dajee gone yi nga xamante tamit jàppoon na leen ñeen ñaar fukki yeeg benn ñu daal di leen di defeere retour de parquet la na mel tey kon daañu leen lëtt wala ñu firi leen yéen kaay bi moom moo gisee nu ni mel Ousmane Sonko ci xëtu yéen kaay bi di wal Walf Quotidien levé immunité parlementaire bu mel ni kon assemblée nationale euh, jébbal na kii di Ousmane Sonko euh, yoon président Moustapha Niass moom xotti rek li nga xamante ne mooy càkkute fu avocat Ousmane Sonko bu bëggoon mu bàyyi xel bu baax lu toll ci ñeenti poñ jëm ci wàllu procédure boobu ba léegi les échos

dafa mel ni Sénégal boo sàggunul daal Amérique dana ko sanctionné ci wàllu koppar ndax kii di Joe Biden président bees bi daal dafa bëgg rek teg ay daan képp koo xamante ne daal euh, da ngay teg fitna euh, nit ñooñu surtout tere leen vi wàllu visa ak yu mel xëy na ñoom Mame Matar Gueye deen wax ci loolu asu ñu wax tamit li nga xamante moom mooy laas ak Alioune Tine gis nga ko noonu moom ñëw li ne daal dafa mel ni rek day wàcc dégg ko moom Alioune li ko waral mooy coow léegi mu ngi biir assemblée nationale gis nga ko noonu jox nañ tamit feu vert ki nga xamante ni mooy euh, euh, justice pour ñu commencé teggi mbalaanu kii laay maître El moom it gis nga ko mi kaay bi moom mi nga xamante ne jóg na ngir défendre soxna si di Adji Sarr wante bëggoon naa jàkkaarloog taskatu xabaar yi moom maître Euh, source à source a it ñëw ci li nga xamante ni kon mooy Maodo Malick Mbaye nee na kii jarbaatam la ki nga xamante ni kon moom moo transporté woon Adji Sarr wante moom laale wu ci dara yéen kaay bii di euh, Vox Populi ñëw ci li nga xamante ni mooy bureau assemblée nationale bi nga xamante ni daal xal na yoon wi nga xamante ni daal ci la Ousmane nar a jaar rek ngir ñu teggi mbalaanu kii raayam fukki fan ak juróom ci weeru février bi laata ñaari fan ñu daal di rek euh, am bi ngir mbir yi gën a yemb loolu ba léegi at le témoin daal di ñëwaat li nga xamante mooy euh, tuuma yin teg ci moom ne dafa siif xale bu jigéen bi ba tax na kon euh, mandat de dépôt nag moom boo saaganul moom kenn du ko ko teg ndax Ousmane Sonko li ko waral li ko may sens mooy parquet bi dafa visé x xëy na ay contrôle judiciaire ak yu ni moo ko ci mën a fekk wante Ousmane Sonko pour mu tëdd kaso mënul yomb li nga xamante ne mooy wàll woowu ba léegi rek ak levée immunité parlementaire bi gis nga ko requête boobu euh, Sud Quotidien daal ci ñëwaat ak tamit ki nga xamante ne mooy Moustapha Niass mi daal di cautionné sëñ Bass sëñ Bass nag mooy le procureur de la République ñoom ñaar seen photo ngi nii ak tamit photo hémicycle bi ñu ñëw ba léegi rek ci wàllu tàggat yaram gis nga ko Neymar dafa mel ni image bi moo tàmmal ne ko ñi nga xamante ñooy nga ci wàllu tàggat yaram tëdd di di gis nga blessé moom Neymar bu mel ni kon euh, lan moo tax kon Paris boo saagunul daal tiitaange dana fa am ndax ñu ngi war a dajeeg Barcelone ci li nga xamante ne mooy euh, Ligue des champions ci ayu bis bi te moom Neymar nërmeeloo tina tëdd ci pelouse yi euh, gis nga ko kii di Sadio Mané tamit mi ngi ci li nga xamante ne mooy stade waaw ah, dafa mel ni daal moom ak Salah daal fi mu toll nii bu ñu doon xëccoo balaw daal Salah waa ko jiitu ndax rek performance yi nga xamante ni doomu Égypte bi am na ko Sadio Mané ren fukki bit la dugal ci ñaar fukki match bu ko defee jamono jooju moom ki nga xamante ni mooy Salah dugal na ñaar fukki bit ak ñett ci fanweeri match ak ñaar yoo xamante ni football na ko jeexale ko sunu làmb ak Balla Gaye numéro 2 Lac de Guiers numéro 2 Guy gi ak Abdou Diouf ñoom ñeent seen photo ngi nii waa Géejawaay yi ay ay VIP lañ leen tuddee nag wante mm, saison bu nar a tàng la nar a amal ku ci nekk ci ki nga xamante ni moom ngay jonganteeg bu fekkente ne bëre dina am astu jërëjëf Chérif defe naa ne ci euh, combat yooyu ku ci daan yow soxla nga ko de samp nga sëgal <laughs> bu dee combat am na xam naa kon du bëree de parce que <laughs> gars yi duñ bëree ak corona bi ah. mu ngi noonu daal merci beaucoup Chérif mu dellu si waat ci xët mu yaa ci li gën a fës ci euh, yéenekaay yi nga xam ne ñoom la ñu xëyandool dem